war nañoo sant yàlla bu wér bim ñu joxee ki fi raw te mooy borom daaru xeeboon nañ ko bani cam tey ñëpp yéemu bani cëy sañay dara ma ñu tey mooy borom daaru tey leer na tay lepp tay lepp lerna lerna ba wër ba wër daru daru ak sikori ak sikori la wër seigneur dara ma ñu naan def naay borom daru bokki yi ñoo ngi leen di nuyu bokki yi ñoo ngi leen di nuyu ginaaw ba ñu sante yalla gannaaw ba ñu sante yalla te luñu tambali diko tambali ci aw te luñu tambali diko tambali ci awturam julli ci yonent bi sallallahu ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. noo ngi sant yàlla. noo ngi sant yàlla. yàlla mi indi woon ak jafeñ ak jafeñ jafeñ. yàlla mi indi woon ak jafeñ jafeñ. ci coobareem. ci coobareem. te kenn mënu ca dara. te kenn mënu ca dara. mom mo indi wat ak yalla mom mo indi wat ak jappandal defena ñaari at a ngi ateng ini. ñaari at a ngi nii yombunu dajé ni yombunu te ñew fi te ñew fi am lu mëna def ci ñun am lu mëna def ci ñun kon lañu xañoon ba ñew fi kon lañu xañoon ba ñew fi dajé fi dajé fi jafeñ-jafeñ la jafeñ-jafeñ la waaye yàllaa ko indi waaye yàllaa ko indi yàlla moomu ko indi yàlla moomu ko indi moo nu mayaat jàppandalug ñu daje moo nu mayaat jàppandalug ñu daje ci coobareem ci coobareem ñaari at yëpp ñaari at yëpp bu doon loolu dong la nu fi yàlla sarax bu doon lool rek la nu fi yàlla sarax jar naa sant jar naa sant te sarax na nu lopp te sarax na nu lopp moom yàlla moom yàlla naka lañuy ñuy gestoo ci li wër naka la ñuy gestoo ci li nu wër ak li ñuy dund ak li ñuy dund bis bu set bis bu set ak waxtu wu ne ak waxtu wu ne ak saa ne ak saa ne te mënunoo gis lu jar sant te noo gis lu jar sant naa loolu amul ci dunduk doomu aadama defe naa loolu amul ci dunduk doomu aadama ak fi ak fi muy dundee ak fi muy dundee kon noo ngi sant yàlla bu baax kon noo ngi sant yàlla bu baax di ay jam, di ay jaam yuy toroxlu fi kanamam yuy toroxlu fi kanamam di nangu seenu njaam di nangu seenu njaam ci kanamu seen borom ci kanamu seen borom oh. loolu ko sëriñ bi wax loolu ko sëriñ bi wax وإن عزوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد إنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لضعف يسار بنو موي يالا رك دانو ساغان بنو موي يالا رك دانو ساغان تي نجومتي تي نجومتي اك رتشيلي اك رتشيلي لاي دون لاي دون واي بنو توبي واي بنو توبي ci sun mëna toñ gii ci sunu mën a tooñ gii. ak sunu néew doole gi ak sunu néew doole gi la mu gën a xeeb ci balaa yi. la mu gën a xeeb ci balaa yi. bu nu ko sànnee attanuñ bu nu ko sànnee attanuñ ko. waxi sëñ tubaa jooju. waxu sëñ tubaa jooju. ñaari at yi ñu toog. ñaari at yi ñu toog. gise gise ak daje. ak daje. jafe ci ñun. jafe ci ñun. waxi sëñ bi la doon firi. waxi sëñ bi la doon firi. فإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر لا غنا توتي سي بلاي بولين كو ساني سين دير اتنو لا توتي سي بلاي بولين كو ساني سين دير اتنو سين خول اتنو سين خول اتنو سين خيل اتنو سين خيل اتنو خول لين تومرانكي غي وون سي ادنا خول لين تومرانكي غي وون سي ادنا بي با في ماي واخ اك ياو با في ماي واخ اك ياو ci julit yi deugal rek la jeex ci ñoom ci julit yi deugal rek la jeex ci ñoom waaye am na ñooñ jeexagul ci ñoom ba tey. waaye am na ñooñ jeexagul ci ñoom ba tey. waaye ñi dëggal. waaye ñi dëggal. ñoom jeexal nañ ko ñoom. jeexal nañ ko ñoom. ndax lu mayewul woon génn. ndax lu mayewul woon génn. bu demee ba mayee génn rek. bu may demee ba mayee génn rek. jeex na jeex na. kon nag noo ngi sant yàlla. kon nag noo ngi sant yàlla. am na ñu nekkoon ca bitim réew. am na ñu nekkoon ca bitim réew. bëgg a gis seen bokk. ba a gis seeni bokk. loolu téye leen. loolu téye leen. am na am am na ñu nekk ci mennum réew. am na ñu nekk ci mennum réew. nekk fa ak kilifa. nekk fa ak seen kilifa. bëgg a dajeeg ñoom. bëgg a dajeeg ñoom. loolu tënk leen. loolu tënk leen. am na ko am am na ko am am nay weer. am na weer. mënatu koo gis gis. am na ko am njabootam. am na ko njabootam. a dajeeg ñoom. mënut a dajeeg ñoom. loolu fitna ju rëy rëy. loolu fitna ju rëy waaye yooyu yëpp. waaye yooyu yëpp. ay njàngale la. ay njàngale la. ak i joxoñ. ak i joxoñ. yu yàlla di joxoñ bindeef yi. yàlla di joxoñ bindeef bëgg leen a recadré rek. bëgg leen a recadré ñu dellusiwaat. ñu dellusiwaat. ci caawa gi. ci caawa gi. ndax bu loolu amul. ndax bu loolu amul. nit ak jinne nit ak jinne ñaari ndijji bopp lañu ñaari ndijji bopp lañu yoo xam ne yoo xam ne buñ leen dul fàttali buñ leen dul fàttali ak di ak di leen nàmmat ak di leen nàmmat dañu yegg ci war a dagg te duñ dagg dañuy yegg ci war a dagg te ñoo mel noonu ñoo mel noonu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha léegi léegi léegi léegi nit nit ab xaal dugg ko. ab xaal dugg ko. mu dem ba mel ne ku yor melow malaaka. mu mel mu dem ba mel ni ku yor melow malaaka. léegi léegi mu sàggan. léegi léegi mu sàggan. ak ak nitee la rek. ak nitee la rek. moo tax sëriñ bi ne ko. moo tax sëriñ bi ne ko. wa in azawka yaa ahad li qaflatin lam yushriku bika ahad. Hmm? waaw buñ la buñ la moyee ngir juum wala ca càggante tamit bokkaale wuñ la ak dara. buñ la moyee ngir juum. wala ak càggante. bokkaale wuñ la ak dara bokkaale dara. ni nu nattee yërmandey sëriñ bi. ni ñu nattee yërmandey sëriñ bi. ak fàtte gu mu fàtte boppam. ak fàtte gu mu fàtte boppam. ci jiital fat gu mu fat ak njabootam. ci jiital fat gu mu ak njabootam. moo tax ñu doxale ko suñu digganteek yàlla. moo tax ñu doxale ko suñu diggante yàlla. bu nu déggee bayit yooyu. bu nu déggee bayit yooyu. xam ne kum layal. xam ne kum layal. sa xel dal. sa xel dal. nu sant nag. ñu sant nag. jëwrinam jii nga xam ne jëwrinam jii nga xam ni moom la wóolu ci mbiram moom la wóolu ci mbiram wóolu ko ci boppam wóolu ko ci boppam wóolu ko ci njabootam wóolu ko ci njabootam dem na ba mujj dem na ba mujj moom sëriñ bi moom sëriñ bi li muy xéewloo li muy xéewloo bëggul muy bàyyi koo fenn bëggul muy bàyyi koo fenn loolu ci mbayum cerno loolu ci mbayum cerno xam ne lu ko cerno yot mu lew xam ne lu ko cerno yot mu lew te kuy yàlla te kuy jaamu yàlla jëfandikoo lu lew da caa baax jëfandikoo lu lew da ca baax Cerno la wóolu ci léppam. Cerno la wóolu ci léppam. moo tax moo tax. ñu ñëw. ñu ñëw ci barab bii. ci barab bii. xam ne nitug yàllaa ngi fii. xam ne nitug yàllaa ngi fii. tëdd fi tëdd fi. inna waliya llahi alladi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihin yàlla. yàlla. mooy walliyu mag wi. mooy walliyu mag bi. walliyu. walliyu mooy kilifa. mooy kilifa. waaye moom yàlla. waaye moom yàlla. yata walla saalixiina moom yàlla moom moo jël gaa yu yi. dafa defaat leen kilifa moom yàlla moo jëlaat gaa yu sell yi defaat leen kilifa. kii nag. kii nag. daa bokk ci kilifa yi. daa bokk ci kilifa yi. di ko jaamu yàlla. di ko jaamu yàlla. di ko wéyee ndigal yàlla yi. di ko wéyee ndigalu yàlla yi. ku ñu seenul kennam ci tere yàlla yi. ku ñu seenul kennam ci tere yàlla yi. dundam gep dundam gep Musa saxoo ci jaamu yàlla mu saxoo ci jaamu yàlla ak liggéey ak liggéey ak fàggulu lew ak fàggulu lew ak defar bindeef fi ak defar bindeef fi tàggat leen tàggat leen yar seen bakkan yi yar seen bakkan yi yéegal seen ruux yi ci yàlla yéegal seen ruux yi ci yàlla lii la def ci dundam lii la def ci dundam ba dajeeg boroomam ba dajeeg boroomam moo tax ñëw ci barab bi moo tax ci barab bi ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla ndax nee naa ne sayru ilallaahi nee naa sayru ilallaahi dox jëm ca yàlla dox jëm ca yàlla dana jeex dana jeex ndax aw yoon la rek ndax aw yoon la rek waaye bu yoon jeexee waaye bu yoon jeexee yegg yegg fa sës yegg fa sës ku xas yegg ci yàlla ku xas yegg ci yàlla dootoo dox jëm ci yàlla dootoo dox jëm ca yàlla waaye da ngay dox ci yàlla waaye da ngay dox ci yàlla dajeegum dajeeg boroomam. dajeegum dajeeg boroomam. ci jëfal ko. ci jëfal ko. jaamu ko jaamu ko. ba doon ci royuwaay. ba doon ci royuwaay. moo tax ñu jàpp ne. moo tax ñu jàpp ni. ni waa Màkka doon baaw naa ne. ni waa Màkka doon naa ne. ci darajay Abbas. ci darajay Abbas. muy bàyyi taxub yonent bi. muy bàyyi taxub yonent bi. moo tax ñu ñëw ci barab bii. moo tax ñu ñëw ci barab bii. ñaanal Cheikh Ibra Faty ñaanal Cheikh Ibra lu tax loolu lu tax loolu dox gi muy dox ci yàlla yegg na dox gi muy dox ci yàlla yegg na dox gi mu doon ci yàlla dox gi doon di jëm ci yàlla yegg na yàgg na dox ci yàlla du jeex dox ci yàlla du jeex moo tax lu baax du doy moo tax lu baax du doy liñ doon jàng ci alxuraan liñ doon jàng ci alxuraan ak i xasida ak i xasida ak turu yàlla ak turu yàlla ñu jox ko ko addiya. ñu jox ko ko addiya. bu nu noppee. bu nu noppee. ñaan yàlla. ñaan yàlla. ci kàttanam. ci kàttanam. man-manam. man-manam. ak sañ-sañam. ak sañ-sañam. ak coobareem. ak coobareem. ci jaamam bii. ci jaamam bii. murus nu ngir moom. murus nu ngir moom. sarax nu li nu koy ñaan. sarax nu li nu koy ñaan. defe naa loolu lu mën a nekk la. defe naa loolu lu mën a nekk la. ñoom nag. ñoom nag. alxuraan leeral nanu alxuraan leeral nanu ñu fi bàyyi ko ñu fi bàyyikoo te te doon jihaad te doon jihaad te jihaad yi te jihaad yi ja ca gën a rëy ja ca gën a rëy mooy jihaad ak bakkan mooy jihaad ak bakkan ñi jihaad ak seen bakkan ñi jihaad ak seen bakkan ba wuy ji seen borom ba wuy ji seen borom ñoo ñaa ci jihaad yu mag bi ñoo ñaa ci jihaad bu mag bi te ñi àndoon ak yonent bi dañ daan jihaad te ñi àndoon ak yonent bi dañ daan jihaad waaye yonent bi xamaloon na leen waaye yonent bi xamaloon na leen ne leen jihaad ju mag ji mooy bakkan ne leen jihaad ju mag ji mooy bakkan kii nag ku jihaat ak bakkanam la kii nag ku jihaat ak bakkanam la ba làq ngërëmal yàlla ba làq ngërëmal yàlla te waxoon nanu ne te waxoon nanu ne ñi daanu ci tooli xare yooyee ñi daanu ci toolu xare yooyee buñ wax ne dañoo faatu nu wax ne dañoo faatu ña nga fa yàlla ña nga fa yàlla ñu di leen bernde ñu di leen bernde Nyaga nga fa yàlla ña fa yàlla ñu di leen teral ñu di leen teral waaye yéen a ko yëgut waaye yéen ko yëgut loolu la alquran wax kon kon Nyom, Nyom, seenu nekk moo fàddu seenu nekk moo fàddu ngir lan ngir lan ku jëm ci yàlla ku jëm ca yàlla ba yegg ba yegg ba dox ci ba dox ci da ngay da ngay kon moom def na kon moom def na intixaal muy tuxu muy tuxu jugee na ci barab bii. jóge na ci barab bii. dem ci beneen barab. dem ci beneen barab. jafewut a xam. jafewut a xam. yonent yi. yonent yi. yonent yàlla Muhammad jiite na leen julli. yonent yàlla Muhammad jiite na leen julli. te bokkuñu ay xarnu. te bokkuñu ay xarnu. bokkuñu jamono. bokkuñu jamono. nan lañ nañ leen def ba julli. nan lañ def ba julli. nuñ def ba daje. nuñ def ba daje. te bokkuñu ay xarnu. te bokkuñu ay xarnu. yàlla la kenn peegul mbiram. yàlla la kenn peegul mbiram. te ki ma jaaxal. te ki ma jaaxal. mooy kiy sàkkal yàlla ci xelam. mooy kiy sàkkal yàlla ci xelam. lu yàlla tële. lu yàlla tële. mbaalum munut mbaalum munut. lenn laa jombalewul yàlla ci ci xeetu man-man. man de lenn laa jombalewul yàlla ci xeetu man ci coobareem. ci coobareem. mën na noo sarax yërmande. mën na noo sarax yërmande. akum njëggal akum njëggal. ci darajay gaa yu baax yi nga xam ne. ci darajay gaa yu baax yi nga xam ne. su jootal nañ ko su jootal nañ ko ruqoo nañ ruqoo nañ wan nañ seeni lal ginnaaw wan nañu seeni i lal ginnaaw ngir seen jëmmi borom ngir seen jëmmi borom a dégg looloo di ràmm di ñoom nag seenum ràmm ñoo nag ñoom nag seenum ràmm duñ xaar jël siraat teg ci kaw jahannama na duñ xaar jël siraat teg ci kaw jahannama de fii la ñuy ràmmoo fii la ñuy ràmmoo ak leer jàmm bi bëgg ko ràmm nag jàmm bu bëgg ki ko ràmm nag day jaar ci yoon wi ñu ràmmoo day jaar ci yoon biñ koy ràmmoo ki tooñ yoon. ki bañ tëj ko ci kaso bi. bañ tëj ko ci kaso bi. boo ko yëgee boo ko yëgul. boo ko yëgee boo ko yëgul. lu mu fa def ci waxtu rek. lu mu fa def ci waxtu rek. daa mel ni sawara la ko def. daa mel ni sawara ko def. ku fa jaar. ku fa jaar tinul ko. tinul ko. bañ génnee ko. bañ génnee ko mu dellu ci liberté. mu dellu ci liberté. dunduloo nga ko àjjana. dunduloo nga ko àjjana. te loolu àddina ji rek la. te loolu àddina jii rek la. kon nan farlu. kon nanu farlu. nangoo jaamu yàlla nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey nangoo liggéey bu nu ko defee rek bu nu ko defee rek li nu bëgg lépp daanu ko am li nu bëgg lépp daanu ko am nañ nangoo jaamu yàlla nanu nangoo jaamu yàlla nañ nangoo liggéey nanu nangoo liggéey nañ joxe suñu dari addiya nanu joxe suñu dari addiya te maandu ci dari jaam te maandu ci dari jaam ku doxee nii ku doxee nii ku dem di nga dem ku dem di nga dem ku demut di nga dem ku demut dinga nga dem allah Allah dem yomb na dem yomb na waaye yegg yombut waaye yegg yombut waaye bu boobee waaye bu boobee ku yeggu da nga yegg yow ku yeggu da nga yegg yàlla kat ndax yàlla kat am na col ko yoo xam ne du fa dem am na col ko yoo xam dem kon kon am na mbubb yoo xam ne am na mbubb yoo xam ne jaam bi fii la ko war a summi jaam bi fii rek war a summi futtiku futtiku sang boppam sang boppam ba set wicc ba set wicc sol lu tax mu mën a dajeeg boroomam. sol lu tax mu mën a dajeeg boroomam. loolu yi nag. loolu yi nag. ci xol bi lay tàmbali. ci xol bi lay tàmbali. dëgg dëgg. dëgg taar. taar mooy xol. mooy taar mooy xol. taar mooy xol. ku la gën jikko. ku la gën ku la gën jikko. gën la xol. gën la xol. ëpp la yërmande. ëpp la yërmande. gën laa dal. gën laa dal. gën laa mën a dimbalee. gën laa mën a dimbalee. moo la dàq moo la dàq. ku munul loolu. ku munul loolu. ñëpp a la dàq. ñëpp a la dàq. taar dëgg. taar dëgg. mooy xol. mooy xol. kon nañu sonn ci xol yi. kon nañu sonn ci xol yi. taxaw na. Iblis taxaw na. di gàllankoor loolu. di gàllankoor loolu. bëgg a yàq xol yi. bëgg a yàq xol yi. yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salimin ëllëg. ëllëg doom yeeg alal yi. doom yeeg alal yi. jëriñu fa dara. jëriñu fa dara. waaye ñi teewal xol bu sell ci kanamu yàlla. waaye ñi teewal xol bu sell ci kanamu yàlla. ñooñaay ñi gënal yàlla. ñooñaay ñi gënal yàlla. loolu mooy bote ci kanamu yàlla. loolu mooy bote ci kanamu yàlla. mooy taar mooy taar. mooy xol bu sell. mooy xol bu sell. munoo dem ba yegg sa borom. munoo dem ba yegg sa borom. te sa xol laabul. te sa xol laabul. li nga bëgg ci moom. li nga bëgg ci moom. xol bi lay seet. xol bi lay seet. moo tax mu ne walladina hum ala qulubihim maradun fa zaadahum allahu marada am na ñoo xam ne seen xol yee wopp am na ñoo xam ne seen xol yee wopp bu ñu rombee kuy bay bu ñu rombee kuy bay mbay ma naat mbay ma naat seen xel a ngi xalaat ngelaw lu tàng seen xel a ngi xalaat ngelaw lu tàng lu mën a yàq tool lu mën a yàq tool bi am na ñooñ am na ñooñ dañoo defaru dañoo defaru bu ñu seenee baykat bay suul bu ñu seenee baykat bay suul seen xel a ngi ci ndoxum asamaan. seen xol seen xel a ngi ci ndoxum asamaan. sottiku ca sottiku ca. mu sax mu sax. te borom tool ba muurloo ko. te borom tool ba muurloo ko. yii nag. yii nag. ay coono la yoo xam ne. ay coono la yoo xam ne. nit da ci sonn ci boppam. nit da ci sonn ci boppam. fexe ba sa xol bañ laa tooñ. fexe ba sa xol bañ laa tooñ. te yaa koy tàggat. te yaa koy tàggat. ni mbër yi yeewoo fajar di wuti doole. ni mbër yi yeewoo fajar di wuti doole. ngir bëreeg seen moroom dong. ngir bëreeg seen moroom dong. sa jikko yi sa jikko yi. mbër la mbër la. ne ci sa biir. ne sa biir bëgg laa daan. bëgg laa daan. ak a jar wuti doole. ak a jar wuti yi gën a rëy. noon yi gën a rëy. doo tàggoog ñoom. doo tàggoog ñoom. mooy sa bakkan bi rek. mooy sa bakkan bi rek. tenun tenun te nun ñu def ko kiñ jàkkaarloo ñu def ko kiñ jàkkaarloo ak kañ dëkkal ak kañ dëkkal kama doon xeelu kama doon xeelu ki romb nuyu ki romb nuyu sab sab sab sab non sab non dana la gagné sab non dana la gagné mu ngi ci biir mu ngi ci biir moy bakkan and ak yow moy and ak yow tak lol tak lol aaja raxas aaja raxas aaja defar aaja defar sab non ak la jégué sab non ak la jégué moy sa bop rek moy sa bop rek kon nañ farlu ci suñu bop kon nañ farlu ci bop dañuy def ñaan. dañuy ñaan. ñaan yàlla mi nu may nu fekkee ko. ñaan yàlla mi nu may nu fekkee ko. yàlla nu may ñu yàgg koo fekkee. yàlla nu yàlla may nu yàgg koo fekkee. yàlla def jàmm ci réew yàlla def jàmm ci réew. may nu nawet yu barkeel. may nu nawet yu barkeel. càmm gu barkeel. càmm gu barkeel. napp gu barkeel. napp gu barkeel. ndoxum asamaan. ndoxum asamaan. mu doy. mu doy te bañ a yàq. te bañ a yàq. te lu ca waay am muy muur. te lu ca waay am muy muur. ndax wërsëg. ndax wërsëg. la nga ca sarxe la nga ca sarxe lekk la nga ca lekk la nga ca lekk la nga ca def ci yoonu yàlla la nga ca def ci yoonu yàlla moo ciy sa muur moo ciy sa muur la nga denc nag wërsëg la tudd la nga denc nag wërsëg la tudd say doona mën nañ koo mujje say doona mën nañ koo mujje mbaa jàmbur bu ca yàlla def muuram mbaa jàmbur bu ca yàlla def muuram kon yàlla nañu yàlla defal jàmm ci réew kon yàlla nañu yàlla defal jàmm ci réew akub dal akub dal ak réew yi ñu wër yëpp ak réew yi ñu wër yëpp yàlla faj aajo yi yàlla faj aajo yi ñi ci biir réew mi ñu ci biir réew mi ak bitim réew ak bitim réew fu waay mën a ne ak fu waay mën a ne rek yàlla na la fa taw feexi suñu borom fekk yàlla na la fa taw feexi suñu borom fekk ak xettalikoog yàlla ak xettalikoog yàlla xettalig yàlla xettalig yàlla yàlla na nu fa fekk yàlla na nu fa fekk ak fu nu mën a ne ci àddina bi mën a ne ci àdduna bi yàlla barkeel yëngutu yi yàlla barkeel yëngutu yi barkeel njaboot yi barkeel njaboot yi ak barab yi ak barab yi ak am am yi ak am am yi te ful ko te ful ko ba jullit yi gën a am doole ba jullit yi gën a am doole gën a mën a góor gën a mën a góor ci dara ci dara ñu tax ñu mën a sàmm seen goor ñu tax ñu mën a sàmm seen ngor kon jërë ngeen jëf kon jërë ngeen jëf